bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyai wal nabiyina muhammadin wa ala alihi wa suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa ñaan borom bi subhaanahu wa mu gën yokku kattan ba li des ci gi yëpp ñu mën koo eggale lépp luñ ci def ci jaamu yàlla it bi subhaanahu wa taala nangul ñu ko ñu ngi dellu siwaat ci suñu bind yi ñuy jagleel tafsirul quranil karim di firi saar yu gàtt yi suñu bindu tey nag dafay jëm ci saar wi di suratul asr mu di saar wu gàtt woo xam ne wu am solo la euh, dajale ay maani yu baree bari ci biiram dina leer incha allah ci biir tafsiru saar wi euh, bu dee saar wi num tudd am na ci ñenn ci mufassirun yi te mooy li ci ëpp dañ koy tuddee suratul asr euh, am ci ñoo xam ne dañ ciy boole waale waaw ga muy wal asr suratul wal asr waaye li ëpp ci mufassirun yi muy ñiy tafsir alquranul karim dañ koy euh, tuddee suratul asr saar wi it mi ngi wàccee màkkatal mukarrama ci waxi ñi nga xam ne ñooy tafsir alquranul karim bu dee ada li nga xam ne moom mooy limu aayaam yi ñett ci ay aaya la nga xam ne moom ak saar wii di suratu nasr mu ida jaa euh, nasrullahi wal fath euh, ñoo tolloo ay aaya ak saar wii di suratul kawthar euh, ñu bokk ci saar yi gën a gàtt ci saari alquranul karim bu ci nekk nekk ñetti aaya amul weneen saar wu yees ñetti aaya bu fekkee saar wi nag lan moo ko lëkkaleeg saar yi ko jiitu woon rawatina saar wi nga xam ne moo ko jiitu woon muy suratu takaathur muy alhaakumu takaathur euh, doomu aadama ji nga xam ne euh, li ko yitteeloon soxal ko mooy ab ëppalante ak euh, pookare ci mbiru àdduna moo xam ci lu mu mën a doon lu dut muy dolleeku ci mbiru àddunaam ci mbiru àllaaxiram mu di ko waajal waajaleeku ngëm yàlla borom bi subhanahu temps taala ak ay jëf Euh, kooku mooy ki nga xam ne mooy ki perte ki saar wi nar a waxtaanee tey aji perte yi nga xam ne moom dafa yittewoo mbiru àdduna rek euh, yittewoowul woon dara ci mbiru àllaaxira mooy ku perte ki nga xam ne saar wi dafa ñëw di wax ci moom ay mbiram euh, te kooku mooy ki jël àllaaxira daat kay jaay jëndee ko àdduna kon saar wi ci loolu lay lay daal di waxtaan ci lay wax Euh, wala loolu moo ko lëkkaleeg li ko jiitu woon bu dee ci saar wi nag ci lan lay wax mënoon nañ mën nañ ko tënk ci euh, ne saar wi dafay leeral euh, yoon wi nga xam ne moom la dundug doomu aadama ji war a jaar comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala bëggee ni ki noonu saar wi dafay leeralit li nga xam ne mooy gëm borom bi subhaanahu wa taala dëggi dëggi gëm borom bi subhaanahu wa taala moom mooy lan ni ki noonu noonu lay melalee ñi nga xam ne ñoo nangul borom bi gëm ko ci Euh, mbooleem ñi jiitu woon ci xeet yi ne seeni melokaan benn la euh, wane it li nga xam ne mooy tax nit ki bañ a bokk ci ñi euh, ñi nga xam ne dañuy perte ëllëg yowmal xiyaama mu wane leen ci benn aaya wax ne lii mooy seen ay jikko lii lañ lañ doon jëfe ci mboolem jamono yi weesu yëpp kon saar yi dafa bokk ci saar yi nga xam ne dañoo gàtt lool waaye daal di bari ay maanaa yu mu làmboo trop bu ñëwee ci am solo goo xam ne saar wi am na ko solo ak ngëneel yi nga xam ne it am na ko euh, saxaaba yi ci boppam ñoom jàppe woon nañ saar wi mu nekk euh, ñu ko daan denkante ci seen biir saa yuñ dajeewaan fenn moo tax ku mel ni Abdullah ibn Husayn day ne Abdullah ibn Husayn day nettali ne euh, ñaar ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawuñ tase ci ab jotaay lu dul ne suñ demee bay bëgg a kenn ci ñoom dafa jàng saar yu fàttali ko moroomam ñu daal di soog a tàqali ko kon loolu day wane am solo goo xam ne saar wi am na ko solo ndax dafa làmboo ay maanaa yu mat sëkk yoo xam ne yu am solo la euh, moo tax euh, ku mel ni ibnu kathir dafay wax ci waxi euh, saxaabi boobu di abdullah ibn xusayn mu wax ne wa hada saniu saniu wa hada saniu min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala idami sha'ni wa ma taxmiluhu min wasaya azima mu ne jëf jooju ñenn ci saxaaba yonent yi daan ko def muy daan dénkante saar wi saa yuñ toogaan ci jataay bay jóg mu ne loolu dafay wane ne saar wi am na mbir mu màgg mu ci nekk ak eh, am na lu mu yore ci ay eh, ndénkaan yu am solo yoo xam ne yu rëy a rëy la mu yu nekk ci biiram kon saar wi dafa nekk saar woo xam ne saar wu màgg la di saar wu woo xam ne wu jar a bàyyi xel la comme ni nga xam ne noonu la ko saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon defee daan ko dénkante saa yuñ toogaan bay daal di waaj a jug niki noonu it saar wi dafa nekk saar woo xam ne dafa dajale mbooleem cosaani diine wala mbooleem cosaani dunduk doomu aadama euh, doomu aadama dund gi muy dund ci àdduna saar wi dafa ñëw daal di koy dajaleel li nga xam ne loolu la foo la war a jëfee ci àdduna bi ngir mu mën a texe ëllëg yowmal xiyaama mooy yóbbal bi mu war a yóbbaloo ci àdduna saar wi dafa ñëw daat ko koy tënkal ci benn aaya ci benn laaya rek ci la ñëw daat ko koy tënkal loolu moo tax imaamu shafii daana wax ne euh, law lam yunazil euh, law lam yunazal gayruhu euh, gayru hadihi suura la kafati nnaas bu fekkoon ne borom bi subhaanahu wa taala wàccewut leneen ci aw saar wudut saar wii rek dana doy nit ña ñu solo ko ci beneen waxi nit muy wax ne law tadabbara naasu hadihi suura la la wasiatuhum bu fekkoon ne nit ñi ñi ngi settantal dëggi dëggi saar wi comme na mu ware saar wi dina leen doy sëkk saar bi dina leen doy sëkk waaye nit ñi dañoo desee seetantal li nga xam ne moom mooy saar wi di wal asra innal insana la fi xusr mu koy wax it ci beneen sens muy law ma anzala allahu xujjatan ala xalqihi illa hadihi surata la kafathum bu suñu borom subhanahu wa taala wàccewul woon weneen lay wudut saar wi kese dina doy ëllëg eh, yowmal qiyaama ci doomu aadama yi ne ñoom du am lay ëllëg seen borom ndax borom bi den dénkoon na leen ci saar wi ay jikko yoo xam ne moom lañ war a jikkoo fii ci àdduna ngir ñu mën a bokk ci ñiy texe ëllëg yowmal qiyaama euh, saar wi dafa lambo mbooleem li nga xam ne li ñu tuddee maratibu diin mooy euh, martabay diine yi ndax diine dafa am ay maratib yu ci yoo xam ne ci la tegu bi ci njëkk mooy maarifatu al xalq euh, maarifatu al xaq subhanahu wa taala mooy nit ki daal di xam kan mooy borom bi subhanahu wa taala xam borom bi lan la jag lan la jagoo ci ay melokaan xam borom bi subhanahu wa taala lan la Euh, euh, yayo moom euh, ci jaamu giñ ko war a jaamu ak lan mooy àqi borom bi subhanahu wa taala loolu moy martaba bu njëkk bi ci diine ñaareelu martaba bi moy al amalu bihi mooy nit ki li mu xam mu jëfe ko bi mu xamee borom bi subhanahu wa taala xam li mu ci ay jaamo yooyu yëpp mu jëfe loolu nga xam ne moom la xam ñetteelu martaba diine bi mooy taalimuhu man laa yuxsinu mooy nit ki daat koy jàngal koo xam ne xamut euh, moom mu daat koy jàngal li mu xam ñeenteel bi moom mooy as-sabru ala la taallumihi wal amali wa amalihi wa kadalika taalimihi euh, mu muñ lor yi nga xam ne moo koy fekk ci jamono jamiy jàng ngir xam borom bi subhanahu wa mu muñ yi nga xam ne it moo koy fekk jamono ja nga xam ne ci lay jëfee euh, li borom bi subhanahu wa taala bëgg ci moom mu muñ it lor ya koy fekk bu demee bay jàngale la nga xam ne moom la xamoon di ko jëfee kon yii mooy martaba yi nga xam ne nekk na ci diine ba pare saar wi daal di koy daal di koy làmbo moo tax kon dina jaadu ci ab jullit mu xam solo soo xam ne solo soo xam ne saar wi am na ko euh, mu daal di koy bàyyi xel bu baax ci mboolem dundam ndaxte ñi ëpp ci borom xam-xam yi dañ koo bàyyi woon xel torop rawatina sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy sahaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee nag ci maana euh, saar wi euh, borom bi subhanahu wa taala ubbee ko ci wal asr ginnaaw bismillahi rahmaani rahim mu ubbee ko ci wal borom bi ubbee ci ngiñ loo xam ne mi ngi koy gi mi ngi koy giñ ci al asr borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki bind lépp moo tax bu ko neexee mën naa giñ ci lu ko soob ci ay mbindeefam ndax giñ na ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la amruk nee na maa ngi waat ci sa dund yow yonente bi giñ na it ci yeneeni mbir giñ na ci jamono yi giñ na ci ay waxtu yoo xam ne yu ñu xam la kon borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki bind lépp te lu ko neexit mu giñ ko mu giñ ca euh, ngiñul yonent borom bi subhanahu wa taala it euh, ci dara day ñëw di dëggal li nga xam ne mooy ñëw ca gannaaw ga saa yu borom bi subhanahu wa taala giñee wax dara euh, day wane la nga xam ne liy ñëw lu dëggu la lu dëgër la lu am la ndax borom bi subhanahu wa taala du waxantu rawatina nag bu giñee gën a dëgëral gën a dëgëral la muy wax ndax giñ dañuy wax ne mooy nit ki bu koy def day koy def ngir dëgëral moom euh, waxam jooju noonu ngir dëgëral position boobu mu nga xam ne moom la taxawee euh, moo tax muy giñ ngir dëgëral dëgëral pas-pas boobu mu yor moo tax borom bi lu mu giñ rek bu boobaa loolu day ak dëggoom day gën a day gën a wér day gën a nekk euh, niki noonu doomu aadama ji moom sañut a giñ lu du mbindeef mi sañut a giñ lu du ci borom bi subhanahu wa taala loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tere woon dafa waxoon ne man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut ku ci giñ ci yéen di dëgëral dara na ko waat ci borom bi subhanahu wa taala wala mu noppi na ko giñ ci borom bi wala mu daal di noppi euh, bu ñëwee ci maana al asr al asr euh, muy borom bi subhanahu wa taala ci lim waat euh, ñu bëri am ñu ko fire ne moom kat mooy waxtu wi nekk ci diggante tisbaar ba mboq mboq yooyu di nekk ci biir jant bi muy avant jant bi di so ñu wax ne waxtu woowu dafa nekk waxtu am solo ndax ci la euh, bëccëg bi di jeex guddi gi di dugg si te it ci la jant bi di waaja sox ngir borom bi subhaanahu wa taala waat gi waat ci waxtu wi nag ngir mu fàttali doomu aadama yi bind gi nga xam ne bind na ko jant bind ko suuf si euh, bind ko guddi ak li nga xam ne moom mooy bëccëg ak borom bi subhaanahu wa taala ni mu organiser li nga xam ne moom mooy kawnu bi mooy nose gi am ci kawnu bi muy ci eh, dend bi ñuy dund borom bi subhaanahu wa taala daat koy defal ak nose eh, gu eh, jaar yoon loolu lépp ngir fàttali doomu aadama ji ci waat gi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala waat na ko ci waxtu woowu noonu te it waxtu woowu ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi di wax ne waxtu la woo xam ne lu ëpp ci doomu aadama yit waxtu woowu ci la ñuy jógee ci seeni liggéey ngir dellu ci seeni seeni kër ngir dellu ci seeni kër nga xam ne moom waxtu la woo xam ne waxtu wu màgg a màgg la borom bi daal ciy waat comme ni borom bi waatee it ci yeneen waxtu yoo xam ne euh, ay xaaj la ci li nga xam ne mooy waxtu yi comme ni mu waatee ci allayl muy guddi niki noonu mu waat ci ad duha muy yoor euh, yoor niki noonu mu waat ci annahaar muy bëccëg niki noonu mu waat waat ci alfajir muy euh, fajar kon borom bi waat na ci waxtu yooyu yëpp kon am nañu firee al asr ci borom xam-xami tafsir yi ne moom mooy waxtu woowu noonu waxtu ba digg bëccëg ba waxtu wi nga xam ne ci la jant bi waaj a so am ñenn ci ñi nga xam ne ñooy mufassirun yi daal di firee al asr ne mooy salaatu asr mooy jullik tàkkusaan ci jullik tàkkusaan la borom bi waat euh, ndaxte euh, wax julli googu dafa nekk julli gu màgg a màgg ba sax borom bi subhanahu wa tuddee tuddee na ko as salaatul wusta muy julli gu diggu doomu gi ndax borom bi dafa wax ne xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta na ngeen wattu julli ya rawatina nag julli ga nga xam ne mooy julli gu diggu doomu ga ñuy wax ne li borom li tax borom bi subhaanahu wa taala waat ci waxtu euh, julli woowu noonu muy ci julli googu di julli tàkkusaan mooy julli la goo xam ne dafa jafe ci ñenn ñi ndax jamono yooyu euh, ñi ci ëpp ci ñoom ca tool ya la leen daan fekk ak yooyu euh, am ci ñoo xam ne moom ca place ya la leen di fekk heure boobu mooy seen heure réglé seen xaalis yi ñu jot a liggéey ci ngoon geeg yooyu noonu ak dellu ba ñuy delluwaat ca kër nga xam ne waxtu woowu dañ ko daan faat yenn saa yi ni mu xaw a jafee ci ñenn ñi ñu ne looloo tax borom bi subhanahu wa taala daal di waat ci waxtu woowu ngir fàttali doomu aadama yi am solo goo xam ne julli googu am na ko am na ko solo amit ñenn ci ñi nga xam ne ñooy mu euh, mufassiroon yi wax ne al asr liñ ci jublu mooy az-zaman mooy euh, jamono borom bi waat ci jamono euh, ci jamono la waat ku mel ni ibnu jarir at-tabari wax ji la tànn ku mel ni ibnu kathir ci ñi nga xam ne dañuy tafsir alquranul karim moom wax ji la tànn te wax ji mooy li ëpp ñi e, tafsirkat yi wax ne moom mooy li gën a wér ne jamono la ci borom bi subhanahu wa taala ndax aaya bi ñëw ci ginnaaw ga borom bi ne innal insana la fi xusr mbooleem doomu aadama yëpp ñu ngi ci perte nga ñu daal ne kon borom bi subhanahu wa taala dafa wax mbooleem doomu aadama yëpp dañoo perte kon lim ci namm moom mooy mbooleem jamono dafay dajale mbooleem doomu aadama yi doon dundu ci li nga xam ne moom mooy ci jamono jooju noonu ci jamono jooju noonu Euh, kon lii muy wax joo xam ne wax ju wax ju dëgër dëgër la borom bi subhanahu wa taala di ci leeral jamono ak li ci xew ci ay taqallubaat muy ay euh, soppax ndiku nga xam ne yenn saa yi nit ñi borom bi subhanahu wa taala leen yenn saa yi nit ñi borom bi subhanahu wa defal leen njàqare ak tiitaange euh, ak yu mel noonu moo tax borom bi daal di waat ci jamono kon borom bi bi mu waatee ci jamono wal asr lan la ci teg daf caa teg lan moo tax muy waat mu ne innal insaana la fi xusr Euh, wat naa ne doomu aadama yëpp ñi ngi ci perte nga euh, kon mboolem doomu aadama génnewuñ ci kenn ndax al ji nekk ci al insaan al jooju ca nekk euh, boobaa dañuy wax ne listigraqi jamii al jins mooy dafay dugal mbooleem koo xam ne doomu aadama nga képp koo xam ne da ngay mbubboo doomu aadama dangay tudd doomu aadama rek da ngay dugg ci perte nga gii nga xam ne borom subhanahu la taala nee na mboolem doomu aadama yi perte nañ bi borom bi subhanahu wa taala waxee nag ne mboolem doomu aadama yi perte nañ dafa am ñum ca seppee ñum ca génnee eh, ndaxte dafa daal di matale woon atte bi daf koo jëloon matale ko après mu am nag ñum ca génnee ci ñi nga xam ne ñoom pertuñ eh, ñi jikkowoo ay jikko moo tax mu daal ne illa alladina amanu wa amilu salihat ba mu des ña nga xam ne nag dañoo gëm borom bi subhanahu wa taala ba pare di jëf-jëf ju baax watawaasow bil xaqi sow bi sabr ñuy dénkante eh, li nga xam ne mooy dëgg di dénkante li nga xam ne it moom mooy ak muñ di dénkante dëgg di dénkante ak muñ kon eh, jikko yi nga xam ne borom bi subhanahu wa tudd na ko fii ne ñoom ñooy ñi dut perte ci doomu aadama yi ñeenti jikko la ci borom bi subhanahu wa taala tudd fii nga xam ne waxoon nañ ne moom mooy dajale maratibul iman muy martabay ngëm yàlla yi borom bi subhanahu wa taala kon ñett yi la dajale mbooleem luy gëm luy mbooleem loo xamante ni mooy tax borom bi subhanahu wa taala musal jàmm bi ëllëg dafa dajaloo ci ñeent yi borom bi subhanahu wa taala tudd fii kon ñeent yi ki nga xam ne moom moo ko dajale euh, bu boobaa moom dana bokk ci ñi borom bi subhanahu wa taala di musal ci perte nga googu mu nettali ne mbooleem doomu aadama yi dañuy daal di perte ëllëg yowmal xiyaama dañuy perte ëllëg yowmal xiyaama melokaan wu njëkk wi nga xam ne borom bi melal na ko ñiy texe ëllëg mooy illa alladina amanu gaa ya nga xam ne dañoo gëm borom bi subhanahu wa taala ñi gëm borom bi subhanahu wa taala euh, gëm borom bi subhanahu wa taala nag euh, dafay nekk pas-pas boo xam ne nit ki fas na ko ci xolam euh, gëmit mu fesal ko it ci aw làmmiñam ba pare it jëfe ko ci ay cëram kon yooyu mënta ñàkk ci gëm borom bi subhanahu wa taala ba pare gëm googu mu gëm borom bi subhanahu wa taala it dafay dajale mboolem ponki gëm borom bi subhanahu wa taala yi mu tuddoon ci xadiisu jibril ba mu waxoon ne an tumina billahi nga gëm nga gëm yàlla al iman mooy nga gëm yàlla wa malaikatihi nga gëm ay malaakaam wa kutubihi nga gëm ay téeréem wa rusulihi nga gëmit ay yonentam wa tumina bil uh, wa bil yawmil axir nga gëm bis penc wa tumina bil qadari xayrihi wa sharrihi nga gëm dogali borom bi subhanahu wa taala yu neex yaag yu naqariya kon gëm borom bi subhanahu wa taala day dajale mbooleem juróom-benni ponk yooyu noonu mooy nga gëm yi nga xam ne moom moo ca aju ndax ki ne dafa gëm borom bi subhanahu wa taala ba pare weddi malaka yi te borom bi digal ko ngir mu gëm euh, malaaka yi wala mu weddi euh, yonent yi wala téere yi wala mu weddi bis penc wala mu weddi dogali borom bi subhanahu wa taala bu boobaa dañ naan ko sa ngëm googu matut euh, ndax ki nga ne da nga koo gëm ba pare weddi ay waxam bu boobaa dañ naan ko sa gëm loolu matut moo tax il faut mu daal di dajale kon juróom benni ponk yooyu noonu ngir ak ngëmam daal di soog a mat niki noonu it il faut mu gëmit li ñu tuddee shu'abul iman mooy lépp lu ñu ne ko lii ab xaaj la ci bokk ci gëm borom bi subhanahu wa taala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na al imaanu bid'un wa bid'un wa sab'una shu'ba alaha la ilaha illa allah wa adnaha imatatul ada ani tarix wal xayaw shu'batun min al iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ngëm yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa nekk ay xaaj yu toll ci juróom-ñaar fukk ak lu teg mu ne bokk na ca mooy nga gëm borom bi subhanahu wa taala euh, mooy ba ca gën a kawe gëm borom bi subhanahu wa taala mooy ba ca gën a kawe ci xaaj yooyu Euh, mu ne ba ca gën a yi moom mooy nit ki di dindi aw lor ci euh, yoon yi euh, mooy ku fekk loo xam ne mën naa loor doomu aadama nekk ci yoon nga daat koy jël toxal ko yonente bi ne loolu ci ngëm yàlla la bokk te mooy ba ca gën a ba ca gën a suufee boole cee it la nga xam ne moom mooy alxayaa u mooy kersa nit ki am kersa it ci gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala la tudd kon yii yëpp dafay dugg ci gëm borom bi subhanahu wa taala nit ki di ko di ko jëfee di di ko jëfee bu dee lenk li nga xam ne mooy gëm muy gëm borom bi subhanahu wa taala wala ngëm rek moom dafay daal di séddalikoo moom ci ñetti martaba euh, martaba yii nii nit ñi ci lañ séddalikoo ci ngëm borom bi subhanahu wa taala ndax gëm dafa am lu tuddee aslul iman euh, aw mutlaqul imaan mooy ngëm goo xamante ni moom euh, cosaanu ngëm rek la moo fa nekk mooy ki nga xam ne moom xas na dugg ci lislaam rek kooku moom xas na dugg ngëm googu dañuy wax ne mooy bépp gëm goo xam ne sax nit ki sax na ci moom waaye loolu daf koy tere mu daal di sax ci sawara mooy yamnau alxuluda min an naar mooy képp ku cosaanu ngëm xas ba nekk ci sa xol moom doo sax sawara doo fa sax euh, mooy euh, dëgg-dëggi ngëm googu nag mooy nit ki daal di taqoog mboolem jaamu borom bi subhaanahu taqoog li nga xamante ni moom mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw ba mu daal ne seedee ne moom euh, dugg na ci diine ba pare daal di mu lu di jaamu yàlla mu defal ko borom bi subhaanahu wa taala bañ koo defal keneen Euh, ndax bu ko defee rek boobaa ngëmam googu day sippeeku ngëmam googu day daal di sippeeku donte ne nit ki ba mu gëmee ba mu saxalee ngëm googu ba pare dugg ci diine donte ne def na ay bàkkaar mooy mën na am mu bàyyi yenn ci war mën na am it mu daal di def yenn ci yi nga xamante ni ay bàkkaar la waaye sax na ca moom mooy li nga xam ne mooy gëm borom bi subhanahu wa taala li feek indiwul lu koy lu koy lu koy euh, fecci fecci ngëm loolu muy comme mu weddi borom bi subhanahu wa taala wala yu ni waaye kon moom ngëm googu sax na ci moom ñaareel bi moom mooy koo xam ne moom am na li ñu tuddee al iman al waajib euh, al imanul waajib mooy koo xam ne moom euh, am na euh, ngëm goo xamante ni tax na ba mboolem li borom bi subhanahu wa taala da koy def mboolem li borom bi subhanahu tere da koy bàyyi kooku noonu moom mooy ngëmam googu daf koy tere mu daal di dugg sawara kooku di dugg sawara mooy képp koo xam ne moom am nga gëm borom bi subhanahu wa taala ngëm googu tax ngay def mboolem li la borom bi subhanahu wa taala digal Euh, ngëm googu yi tax ngay bàyyi mboolem lu la borom bi subhanahu wa taala tere nga bàyyi ko kon dafay wuutee ku njëkk ka ku njëkk ka amoon na ngëm waaye mi ngi doon def yenn ci borom bi digle yenn saa yi mu daal di mu daal ay bàkkaar yu ni mel waaye kii moom dafa def mboolem liñ ko digal ci li borom bi subhanahu wa digle mu koy def di bàyyi mboolem tere borom bi subhanahu wa taala waaye nag ca ya borom bi digle waajibaat ya rek la la doon def yam tere it euh, la nga xam ne muharramaat ya euh, kese la bàyyi woon mooy yawar ak yeñ yeñ xaraamal ca loola la nekkoon kooku kon euh, moom dañuy wax ne kooku du dugg sawara comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci euh, ci texte yi euh, mu leeral lu mel noonu ñetteel bi mooy li ñu tuddee al imaanul mustahab mooy ngëm yàlla goo xamante ni moom mooy bi gën a kawe ci façon yi mooy ka nga xam ne ngëm nga daf koo tax moom def waxuñ waajibaat ya rek mooy yawar ak bàyyi yañ tere rek waaye moom daf caa boole sax mbooleem lu borom bi subhanahu la sopp mooy yuñ sopp ya da ko daan def loo xam ne sax dañ ci diine moom daf ko daan bàyyi nga xam ne loolu mooy ngëmuk euh, ñu euh, ñi nga xam ne dañoo egg ci a darajaat al ulya muy euh, nabiyun yaag ñu mel ni ñoom kon ñooñu noonu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu gën a kawe moo tax kon yii nii ñetti ñetti kii ñu fi wax ñetti martaba yi nga xam ne iman am na ko benn aaya ci alquranul karim dafa ñëw di ko dajale muy fi borom bi subhanahu wa taala di wax ne summa awratna summa awratna alkitaaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil xayraat suñu borom ne ñi mu donnaloo téere bi ñi nga xam ne ñoo ko gëm mu donnaloo leen téere bi ñooñu ñooy ñamu tànn ci ay jaamam mu ne nag am na ci ñoo xam ne moom zalim li nafsihi la mooy ñi nga xam ne am nañ cosaanu ngëm waaye yenn saa yi ñu daal di def bàkkaar wala yenn saa yi ñu bayi loo xam ne lu war la ño euh, ñooñu borom bi tudd leen zalimun li nafsihi mooy ko xam ne ku tooñ boppam la euh, borom bi subhanahu wa taala teg ca wa minhum muqtasid muqtasid mooy koo xam ne moom am na cosaanu ngëm waaye mo ma ngay jëf mbooleem lu ko borom bi digal euh, ci ay waajibaat muy ca ca war ma ngay bàyyi mbooleem li nga xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ko koo tere ci ay euh, ci euh, ay muharramat muy ca ya nga xam ne borom bi subhanahu wa taala koo tere ma ngi koy bàyyi kon kooku borom bi tuddee ko al muqtasid borom bi subhanahu wa wax ne wa minhum saabiqun bil xayraat am na ci nag ñoo xam ne ña ngay njëkkante ca yiw ya mooy ñi nga xam ne amoon nañ cosaanu ngëm ba pare doon def mboolem li nga xam ne waajibaat la muy yi nga xam ne borom bi daf koo farataal ci ñoom doon bàyyi mboolem muharramaat yi yi nga xam ne borom bi daf ko xaraamal ci ñoom ba pare boole ca doon jëf almustahabaat mooy yi ñu sopp boole ca doon bàyyi yi nga xam ne almakruhaat la mooy yi nga xam ne dañ koo sib euh, ñooñu borom bi tuddee leen saabiqun bil xayraat ñi nga xam ne dañuy njëkkante ci aw yiw borom bi ba mu waxee loolu ba pare nag daf leen a dig aljanna ñoom ñëpp borom bi subhanahu wa taala dig na leen aljanna kon loolu di wane ne nit ñi dañoo wuute ay daraja Euh, ci li nga xam ne moom mooy ci iman yàlla ñu borom subhanahu wa taala boole ci ñu gën a kawe ay daraja ci euh, maratibul iman xam naa dañuy taxawandi fii tey suñu bindu tey euh, bu ëllëgee incha allah ñu mottali jikko yi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala wax nañ